asalaamaaleykum sama gaa yi waaw cheikh bi del si na dee waaw leen nuyu yéen ñëpp fu ngeen toll ci fii ci globe bi jox leen loxo di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey la kañ tey la samedi ah. ñu del si nag war a waxaat suñu xalaat rek comme ñu koy defee semaine bu nekk waaw semaine bi jox nañ leen benn vidéo bi mooy deuxième bi ah, parce que dañ nekk en vacances moo tax ñu may leen lii voilà del soir nag di wax ci mbirum Sénégal rek mais bala ñuy dem nag dama leen bëgg présenter sama benn siste benn waykat boo xam si bu am importance la euh, ngeen war ko war ko xàmmee mi ngi dugg ci panorama euh, bu musique sénégalaise euh, koo xam ne si bu ngeen ko xoolee sax dapaarul ci way dafa yor liggéeyam mais am passion way di woy bëgg woy di def ay tournée européen sax te yéen yëgu leen ci dara ah moom bëgg leen ko présenter ngeen xam ko xool ko xam moom mooy kan bala ma leen di wax kan la nag dama bëgg ngeen seetaan vidéo clipam bii mu def hmm? mu génne ci albumam hmm? Pape Cheikh Diallo présenté na leen ko sax ci ci programme am yi mais xam naa ne peut-être ñu bare sote na leen moo tax ma jël ko war leen ko proposé waat fii ngeen xoolal ma vidéo bi clip bi après mu ñëw doog leen wax moom mooy kan xool leen ko après ñuy doog a commencé nag suñ xalaat ci Sénégal comme niñ koy defee semaine bu nekk. fii leen ko like leen ko yéen ñëpp après ñu dellusiwaat doog dugg ci débat bi yes wala sama gars yi yéen ko gis de waaw kooku nag ma koy présenté aminata khas la do, aminata khas. Japol tur yow mi buko fatede. bu ko fàtte de ndax da ngeen ko dégg ci panorama musique sénégalaise Wala, et musique internationale parce que moom ah world music lay def dina def mbalax sax mais musique am musique ah, mélomane yi dëggantaan yooyu nga instrumental lay doon instrument yu yu grau, yooyu ngeen dek ay xalama ay kooraag lépp ngeen dégg ci ay musique am ma waroon nañ ko présenté en général du ngeen ma dégg may def yooyu mais nag nit ki bu mérité il faut ma jox ko li tubaab naan ah, il faut donner à César ce qui appartient à César am na ñoo xam dañoo mérité def musique Sénégal mais duñ leen jox euh, benn. promotion bi donc c'est juste ñun ñi tamit aussi ñu leen di jappalé kooku moy Aminata Xas na ngeen xol bu ngeen demee ci YouTube aussi di ngeen gis yenen euh, yenen yenen affaire ci mom di ngeen ko dégg amna album bu génn amna yenen production yu muy def euh, ay tournée internationale am yépp di ngeen ko gis tout récemment en France ak Bel ak Bruxelles def na ay bagage yu bare bare bare bare di ngeen xam kan moy Aminata Xas kon nag loolu mooy loo xam ne dafa jàll ñu war a ñëwaat nag ci li nga xamné mom suis chaque semaine muy actualité Sénégal donc demb nañ euh, sen marche marche ñu marche flop def toujours dellusiwaat dañ ca te xamuñu ñom li nga vraiment. mooy élément numéro un ci koo xam ne da ngay def euh, nee nga patriote nga nee nga activiste nga mais ñoom nañ koy doxee du benn parce que avant tout ñoom dañoo jubalu ci seen biir ñoom ñoo gën a iñaanante ci seen biir kenn ku ci nekk bëgg nga fes suul ñeneen ñi voilà les vrais activistes ñi ma xam mbokk pour man ma retenir leen ko comme activiste bien que ànduma ñoom ca la ñuy def ak nañ koy defe ak nañ koy waxee mais ñoom lay reconnaître comme ay activiste mën naa leen ci sel kenn ku ñuy wax Assane Diouf Assane Diouf dégg ngeen Khadim Gueye dal na ko fii dal bu nekk voilà mais Assane Diouf bu ñu demee analyser ko analyser ay bagaasam déglu ay waxam dégg ko ñaawaay ba ca saaga ya man Assane xam na ne mosuma ànd ak moom ci yooyu waaw te ba ma koy dal fii ne naa la ñuy taxaw di ko saaga tey amu ci kenn ku ñeme woon ŋaaŋ ñoom ñëpp ils étaient contre jëmm ji contre ma tey jii nag ñoom ñooy fak simile yi ni ñuy wax fak simile mi ngi mel ne billet originalu euro ak ñi nga xam dañuy joxe billet faux billet ñi ay faux billet lañ ay feek lañ ay false lañ tey jii ñoom ñoo bëgg a taxaw ne ñooy monopoliser réseaux sociaux yi ñoom ñoo leen taxawal ci seen marché yooyu dégg naa ci démb kenn comme je me rappelle plus le nom xam nga mu ngi taxaw naan gars yi tàppet ngeen moo leen di filmer de tàppet ngeen dem leen attaquer leen def leen lii def leen laa lu ngeen di daw ah nangam naa te moom moo taxaw fi den filmer ah ca gannaaw au lieu moom mu teg affaire bi nañ ko filme moom mu dem ñafe déedéet ñeneen ñi lay yabal comme ni ma leen ko waxee rek bokkat yi yéenay dem ngeen rey seen bopp yéenay tuur seen deret mais ñoom dañ war a neutre quoi ñoom moom succès ak seen succès mooy ñu filmer la buñ lay rey wala ñu lay sànni lacrymogène ba wala ñu lay yeew di la yóbbu kaso moom moo koy filmer ñoom ñoo koy filmer ñëw won leen ko ci YouTube bi ci Facebook bi ah di ñe ñooy patriote yi quoi waxuma la ñoom ñenn ca Sénégal nekk ca fa ñuy defee marche ba ñoom ñooy daw res waxuma la nag baadoolo golo yi ne ay Amérique ak ay pare fu ne naan dem leen rey leen seen bopp dee leen bon fanaan leen foofu ñu jox leen ngeen lekk ñoo leen di yónnee ngeen naan kat ci kese voilà lu tax ñoom jëluñu avion mu yomb ñu ñëw bu ñu ne programmé nañ ko gannaaw yéen seen ay manifestation da ngeen koy programmé mais ñoom mën nañ am temps bu lee Sénégal lañ wax ne moom lañ gëm jaral na leen loolu ah lu tax jëluñu billet ñu ñëw jiite leen lu tax ñëwuñu comme la suñu maam Lat Joor doon def ak fasam ñëw jiite na ca kanam hmm? bu dee di am ñoom ñu dee moom mu dee ah ñii déedéet fee la ñuy taxaw nga dekk ku naan la la ilaha yor ay rasta ak yu kan xamut han eh, ke taxaw fe di ñangal sol kabam dem len ngeen de lay fal fal njaga barke cheikh ibra gëmuñu ci dara di saga ay nday di dag ay saga ay nday fu ñuy tuddee tugu yàlla hmm? yara di ko mën na weesu sama gaay han eh. dem gis ñe len ci yu flop ye ñooñ ñooy taxaw ci Europe bi toog ci réseaux sociaux yi ngeen yaakaar na yow ñii ñoom fu ñu waxee rek Sénégal yépp ay mobilisé wu te xamuñu ne Sénégal yi amuñu seen jot seen yu ñàkk fayda yooyu dem wutuñ lekk luñ jox seen njaboot gee moo leen ëppal solo di wax di dem di topp ay conneries yoo xam ne tegul fenn déggu leen fi woon classe Tunkara geek Bado bu tegtul bara tok ci otoom sol di jaay ay mbasin yu rafet ak kap mbox mbaxana mu nice ah ñoon ñooy lii ñun ñooy la ñun ñooy lële di ngand ngand lu ah dem len ray len déloger len dini Macky Sall yéen a koy déloger ñoom duñ ko déloger fañ na ci Amérique de non mais yéen lañ yebal waaw démb dem ngeen fa lan ngeen fa jële déggu fan yi ñu ultimatum le chef de l'État, l'État sénégalais, bam dak mercredi bo libéré wul Mari Guy sanya da ñëw ba ca palais ba déloger la tay la lan tay la samedi tay ji le samedi mercredi romb nañ ko di fan ci gënaaw la won ana Marie Guy sanya ma nga ca ndumb sen ga gayen voilà makistal waxam bari wul te jëfam dafa bari voilà ki def du wax xaj bi mbaw du xaj bay mat lan lañ def tapé di dara def ñu fa dem newoon na len palais ba duñ fa jege parce que mari Guy sañé nam fa jallé dribler policier yi ak verre yooyu cinq personnes 6 dañ naan noo ñii jëmuñu fenn policier ba gis nga ke leen géré won sax ñak na ci place am ndax ñu ñàkk fayda ñi dem ba ci fof di xataraay di ngand ngandlu ñu tejj ko hein journaux yeeg réseaux sociaux lim bëggon am na ko ci ñëpp ñu ngi koy ciow duguna fi génn kërëb kërëb héros national du tous du dara voilà parce que li ñuy def du du du proteste li ñuy def du manifestation be passé gisoon ngeen fou malade bi ngeen saga semaine bi yépp ngeen ko saga ba demb feeñu fa voilà ndax lan kan ngeen fa gis chat mom mo ñëw def ben live am nañ dem Macky Sall say say la dugu na fi génn di ngand ngandlu mais sama gaay dama leen laaj fou malade li leen mola Morgan di wax mola léeg-léeg mu déconné mais ju bar dama andax mom Molaane la ñi ay fake lañ ay faux type lañ ñoom dañoo lekk ba suur moo politiciens yi ma leen doon wax ci semaine bi ah nga xam dañoo round depuis Senghor ba léegi ah nice na ñuy xëccoo ay këru kii am na këru un milliard ak ke boo ko doon buñ doon jaay këram un milliard buñ la ko ci fayee day bañ dugg na fi génn jëlewuñ ko fenn liggéeyuñ fi liggéey buñ mën a amee loolu hmm. waa waa yaana maar ils comme ça démb dégg naa seen benn gaa boo xam ne il n'est même pas yu kenn faalewu ko parce que Y'en a bu ñuy wax caat la ñuy wax Fou Malade ak ak ak kilifa voilà mais kañ ngeen gëj a gis benn manifestation bu am ñett ñi ma limal daje fa Fou Malade caat kilifa non bee yoon Fou moo fa nekkoon ak Cap Young leen ko Fou Malade di waxee ñooy ñëw moom animation lay def quoi. ah yuuxu yi fii ah Marigout Sagna libéraux ah nanana libéraux libero bi bi bi gars yi danse fecc ba mu neex leen kooku ñoom ñëpp ñu ñibbi quoi kenn ku ne ñëw photo ak moom moom moo yor micro am parce que ko neex lan bëgg ngay wax lu la neexul du ko wax dugg na fi genn bu affaire bi jeexee ñu xool ñoom dañuy wut mbooloo mu daja fa ñu filmer leen comme noonu leen ko Moula Morgan waxee. ñu filmer leen photo leen mbooloo ma fa nekk utiliser yeneen mouvement yi ba pare jël ko jaay ko lobby international yi xam nga won leen ne ñun ñooy euh, mouvement bi nga xam ne ñun ñooy yor proteste bu Sénégal ñun ñooy guerrier ñun ñooy xeexal Sénégal ñuy jël monnaie di leen financer ñoom ñu def ko seen down ne pat gis nga béyot Fou Malade moo fa nekkoon gars yi saaga nañ ko ba muy naaw ci réseaux sociaux yi voilà lu ne wax nañ ko Fou Malade gis leen ko fa demb kan moo génn caat caat ñëw lan la caat jëkk a def ñëw taxaw ca policier yi ñu jàpp ko yóbbu ko gis nga lu réseaux sociaux yi ak euh, site internet la lañ bind arrêté nañ caat jàpp nañ ko caat am na bësam comme loolu Marie Guy Sagna defoon xam nga da ngay ñëw yëngal rek ñu jël la gars yi def la ci réseaux sociaux yi xam nga ñu ne yow héros national nga caat déggu ko foon temps yépp il était disparu dem mu génn à l'improviso ñëw taxaw ah taxaw te gis nga affaire boobu oto bi mu nekkoon waa ji doon dawal oto bi moo yorul permis de conduire gars yi policiers yi normalement ñu contrôler ko jël leen ñoom yóbbu leen police en fait libéré nañ ko te pourtant diggante boobu xam ne foofu may nañ ko bës. parce que city bin nañ arrêté nañ caat japp nañ caat duguna na fi genn kërëb kërëb xamuñu lu tax ñu japp ko duguna na fi genn Macky Sall dictateur la bëggul ñu japp bu Sénégal kenn di fi dox duguna na fi genn mu jaay fi ngand ngand te du tous du dara zéro la wa kilifa déggu leen gisu leen ko man bima ko mujjé gis ci auto la ko gis mok sama sister euh num toy sax waye <laughs> Euh, labar sec voilà ñu toog ci oto di kaf di ree kërëb kër ay bagage tu waa mu war a génn war a wax ay waxam mais gis leen ko ñu manifestation ba de non nekk foon non donc yow ñi nga xam ñooy leader yi ñi nga xam ñoom lañ ñoo compté ah kenn par kenn ñoom ñooy dem voilà bu flop amee kenn ku ne jën ko sa morom bu succès amee ñoom ñëpp ñu bëgg ko bokk te succès bi ñoom bu ñu gisoon ñeneen def seen ay protest ñëw dajaloo fa ñoom dañuy ñëw seen i caméra ak seen i photo noonu leen ko mu laa mu laa mu leen gën a xam kan moo Y'en a marre ni leen ko waxee dafa dëkk ñoom yewoo ñoom di lekk ndox ñoom xam leen bu baax xam ñan la ñuy waxal ak ñan la ñuy jëflanteel ay faux type lañ. mouvement bu bees bu fa nar a taxaw ñoom ñi ñëw dugg ca bu ñu ñëwee ak seen camion ñëw taxaw ñooy jël mérite ba bu ñu demee jaay ko au niveau international ñu jox leen xaalis ñu def seen down ne pat voilà di ngeen di yeewu yi ngeen def affaire golo yi ngeen def tekkiwul dara. ñaar ñoo fi taxaw ñoom nee na ñoo bëgg a nekk ay leader ci réseaux sociaux yi ah man mii ba may contre Assane Diouf di ko dal di dóor Assane ñoom ñi ñoo taxawoon waaye yow dóor waaye di ma xeex man mii man côté bi mu féete aw ma fa concurrence mais Assane dafa dem ba léegi ñëpp nekk ay ay ay ay concurrent am voilà donc il bu mu lay wax activiste moom gis nga yaay na leen tax ñëwul ci seen manifestation ñàkk fayda yooyu leen la àjjuma bis bu am solo la ñëwuma ci seen dof yooyu waaw sénégalais yi xalaat nañ ko noonu mu koy xalaatee. te doo leen ne ma Assane Diouf Amérique la nekk il est au Sénégal pourtant mënoon na ñëw foofu hmm? mënoon na ñëw peut mu ëpp leen buzz yéen ñooñu voilà tu vois mais defu ko li ngeen def gi nga flop bi ngeen def yéen ci ciy ñaar ñett ñoo xam ne ñooy ne ñooy leader live yi léegi ku ci live ñu gis la 500 personnes seetaan la nga defe ne yow yaa yor àdduna yaa moom àdduna du ngeen dara. man Assane mosuma ànd ak Assane nee naa la ba may wax Assane la ma doon doon Assane kenn ñemewu woon ci yéen barke Serigne tubaab voilà mais mooy seen baay du ngeen mës doon Assane Diouf voilà ñi taxaw fii tey naan naa di ngand ngand dàqa saaga mën ngeen fi saaga lu Assane saagawul mën ngeen fi kaas lu mu kaasul mën ngeen fi wax lu mu waxul hmm? donc man moo d'accord loon Assane Diouf cooy naa d'accord golo yoo xam tekkiwuñ dara ay fake ay facsimilé hmm? ñoo xam bu doon billet yu vrai damaa ay foo billet ngeen leen wax dëgg gaan normal leen voilà kooku bu demee ah ba lem geenam ne man ci li laay génn ci li laay wax naa ah, bu dee moom ngeen toppoon ngeen mën a ànd ak moom mais tey bëgg a génn naan da koy yëkkati teg ko ci suuf yéen ngeen feeñ du ngeen mës a feeñ ci kanamam kooku du am c'est pas pour défendre Assane Diouf de non mais damay koo xam damay toog di observer réseaux sociaux yi ngeen nekk ci laa nekk gënal leen ma cee siiw xam nga lu ma la wax voilà donc bu ngeen ñëwee ne yéen yéen ak remplacer Assane Diouf xam ngeen ne fayu leen nar ba xoromam voilà mooy seen bay ngeen nangu ko ak ngeen bañ ko da ngeen di régler parce que ñooñ yéen ñooñu laa doon gis démb ba ma koy clash man ngeen taxaw fii hein di ma clash d'accord leen ak man tey jii ngeen ñëw bëgg na da ngeen koy uutu ndax mom, au moins lam doon wax xeyna ma nga senegal di wax me yeen ay tappet ngeen yu nek ci amerique nek fune diko di voilà dam len ci sur le terrain comme mom tëdd len fum mu ngeen genn il a assumé waaw lu ko nit bañ bañ bañ lu nit d'accord accordul ak moom xam na assumé non quoi nit ki nañ koy jox césar nañ koy jox lim mom, voilà teñ normal waaw Nous jóge ci ñooñu ay sont avec Macky Sall poids politique qui sommes Nous nous di Nous opposition Macky Sall nous hein? Nous attaquer son excellence Nous Macky Sall est un député lañ gouvernement voilà ñëw di wax loo xam ne opposition bu ñoo koo wax ñoom ñoo koy wax tey pour que golo yi ñi ànd ak Sonko ñëpp bëgg li leen tàcc quoi léegi ñoom ñëpp ay héros lañ ay Cissé Lo ay héros lañ doon Cissé Lo sax au moins yàgg na ci yooyu moom déconneur la woon xam nga gars yi xam nañ ko ci mais am na ñoo xam facsimilé yi li ma leen di wax ñu Assane Diouf original ba ak ñi nga xam ne dañuy dañ ñooy facsimilé yi ah foo yi hmm. ñëw di top si c'est loolu lam doon def tay ji ñu bari dañ bëgg jël exemple ci moom bokko def roy nag du mësa a nuroog pur na ngeen ko jàpp roy du mësa a nuro ak pur du mësa am la ca jig si selo ak la ca jig Assane Diouf jigu leen ci yéen kon nag na ngeen normal sama gars waaw dégg naa ci sànq benn Moustapha Diakhaté xaw ma seen TV yi nga xam na ñoom xas lépp luy Macky Sall lépp lu contre Macky Sall seen patron waaw bay moom moom Macky ñoo demoon buggaan xam nañ ne àndul ak Macky ay gars am fii la ñu nekk lu ñu wax ña ngay wàññi dem manifestation flop be ay gars am ñoo fa nekk lu ngeen fa jële zéro waaw zéro waaw lan mooy satisfaction bu gis ñu ko ay tunkara baadoola bu tekkul dara boobu ay Ousmane Dramé toog fi ah ñun dañoo waroon ah def lii siselo ba muy nekk fii ngooñ la mu doon jaay dugg na fii gën ah, far ba ngom bërki démb coxeur la woon di jël ay oto di dugal fii di charger oto yi koo xam ne tekkiwul dara fee la nekk ci Amérique taxi bu mu yor sax doxul hmm? bu ñëwee fi ci lëndam sax lay wax ak génn bu dox ne ñii ñooy ñan duñ dara un Tounkara bu toogee fii di wax dangay ngay defe ne waa ji daal fee lay toog di dicter Sénégal quoi Macky sàll maa lay jox vingt quatre heures nga libéré kii nga def lii mën ngeen di gis benn ganaar bu Sénégal ganaar laa la wax wala tum waaye yow muus mu nekk Sénégal moo xam Tounkara joxe na fi ultimatum ñu réglé ko dara amu ci fii lay taxaw gis nga déenati na flop na fee ay Aliou Sall ay góor jigéen la dugg na fi Tounkara góor jigéen rek mooy xam moroomum góor jigéenam waaw ko jiñ gor jee mën la ko jiñ kan ko jiñ bu dee da nga tedd ak mom ñëwal nga ne yow da nga tedd ak mom ba tan gor jigen la waaw xamal sa bop sum way way nit kan du ko juge ci mbubb muy sol du loolu ngay sol ak téléphone génné téléphone nan ki moy dernier model beeg ki moy bële yoyu ce n'est rien sat loy sat mën nga cee jënd téléphone 5000 euros ça ne veut rien dire oo fi génne téléphone bu nit yorul voilà téléphone bu nit yor do ko fi génne am ño xamné round la def round la la wax ha ah. jënd ci téléphone am ño xam dañuy dem su ñak ko Niko ko italien yi waxee soudaré ko voilà ta jamais sué dans ta vie lool taxaw man may ki sama bay moy ki man ma am li ke mo am lee ngee baadoola la man lu ma wax ak la man baadoola lay Richard yi lay defal mais tu es kii t'as rien démontré lool tok ce vidéo bobu di wax rek waaw toog ci oto bi di kàcc rek sénégalais yi dañ leen a xam. yow bu deen am nga jom yaag ñi ngay bëmax Sénégal yaag sa kon yooyu fa nekk ah, di jaay ay baay faal yu gën xamut ah li ngeen di wax foofu xam ngeen ne Sénégal day dugg fii seen nopp du génn fële faale wuñu leen yeguñu leen parce que xam ne ay feek yéen ku taxaw naan man Amérique laay dund faale wu mu nekk senegaal bu ñëwee fii Macky Sall bu ñëwee dinaa ko rey dinaa goon ñu génnee goon ma génnee goon ban goon ngeen di génnee fa ngeen dul génnee dara na leer Macky Sall ñëw na fa baadoola tunkara bi ca mbedd ma la taxawoon di yuuxu ay président ah il faut respecter les sénégalais président lii te du yuuxu fii bu ñëwee dama koy rey lan la fa def dara def leen ko bu dee Sénégal intéressé wu leen Amérique ngeen di dund fasu leen yéen a ñëw Sénégal mais lu leen intéressé ci problème sénégalais yi sénégalais yi xam ne tellement ay fee ngeen ba jarul leen ñuy perdre seen temps di génn seen ñàkk fayda yooyu ay golo yu ne ca Amérique yu ne ca France leen ko dicté ñu ñëw di ko def wan nañ leen ko benn yoon ñaar yoon ñett yoon am leen jom ngeen tey di woo sénégalais ci lu am solo lu am fula lu am fayda lu change seen vie ba ngeen fi dalee protester ba tey dara changé wu fa dara. li ngeen doon wax da ngeen di yàqal sax ña nga xam ne yërmande waroon na wàcc seen kaw Guy Marius Sagna mais xëy na waroon na mën a génn mais ñi taxaw fii classe Tunkara geeg golo yu mel ne moom dàngeen yooyu ah ñooñu tax na dana gën a tëdd ca kaso bi def na ko Macky Sall ne pat lu leen ci mën ma nga ca pale ba de néew leen woon mercredi bi ko génnewul da ngeen koy dem delooja yéen nag seen sonko bi taxaw naan leen dem leen ngeen xeex ma ñëw toog nekkoo bu bëggee na dugg ci àll bee convaincre sénégal yi programme politique lii laa di proposé bu ñu demee ba élection ñëw ah ñu xool ko mu convaincre ñu voté ko mais li mu bëgg du tunkaraak ay Dramé yu tekkiwul dara ay Ousmane Dramé ay golo yi ne fii di yuuxu naan ñooy Assane Diouf yu bees yi du ngeen tos Assane mooy seen baay Macky Sall mënalu leen ko 15 faalewu leen du leen tontu la muy def da koy def bu ngeen génnee yuuxu leen waaw. dégg naa benn membre démb bu euh, yaanamaar mooy ñooñ nga xam ne ñooñu ñu ci suuf quoi parce que ña compte yaanamaar wax naa la ko mooy ñett ñooñu te ñett ñooñu doo leen gis jamais ñu ànd ñoom ñett kenn par kenn la ñuy ñëwa ah, kooku moo lay wax union ba c'est où waaw ñooñu dañu lekk ba suur comme ni ma waxee faale wuñ Sénégal faale wuñ sénégalais yi voilà lu ñëw daal ñoom seen business bopp la bu ngeen fi wootee ba nit ñi daje ñooy filmer maamu lépp ñëw jaay ko lekk ci monu yéen ngeen jor zéro du ngeen am tous voilà ñoom sax laa gën a respect classe Tunkara gi ne di yuuxu di saaga ay président di offendre gouvernement di offendre président bee ku nekk ñu saaga sa ndey te amuñu si dara voilà Ni sax au moins ça ah, ñi ngi ñëw di utiliser population Sénégal di utiliser espèce activiste yi hein di len filmer di ko jaay ah, hobby international yi quoi voilà France bobu ñuy wax ay France dégage dégg naa bu euh le vieux à Ousmane Drabé hein il faut ñu dem télé Youssou Ndour da ngeen dem ba ngeen jël télé bi quoi Amérique la nek de di jabal gars yi les vauriens là dem len ngeen jël télé Youssou Ndour lan mo ci yoonam Youssou Ndour mooy Macky Sall Youssou Ndour dafa yor Sénégal Youssou Ndour ubbi loo xam dafa jaf Sénégal di jox ay nit leen fay loo xam ne mbaam yi mel ne moom moo koy wax ah, ak ay tunkara defuñu ko mosuñ jël benn employé Sénégal duñ ko mës jël. kee jëlal la ay plus de sept cent cinquante personnes yoo xam ne TFM boobu ñu ngi fay liggéey nga ñëw naan noo léegi nañ fa dem bu ñu fa jëlee techniciens yi sax ah yéen lañ àndal boo demee ci xale xalif général ba bëkk néeg bi moom la àndal mais yéen yéen yéen da ngeen a dof ñu wax ñu naan dem leen Auchan xoola paa bu mel ni dem ba bijaaw ah war a toog di jàmm yàlla ay xale yu nekk Sénégal futur ba lan lay wax mooy dem leen Auchan ngeen saccage ko quoi xoola ñi ñii ñoom fitna lañ bëgg a ci Sénégal loo xam ne amu fa da ngeen war a xam ne gis nga manifestation yeen ngeen gis ay Guinée ay ay France se organisé ñoom am na lu ñuy xeex lu ko jar dañuy organiser wu duñ ñu iñaan ñu mel ne yéen nga xam ne groupe bi bokkul ak bee kenn ku ne yaa ngay iñaane sa morom kenn ku ne bëggul jox bëgg jël méritu euh, marche yooyu ngeen di def du mës a am da ngeen yàgg ci nag di wàlliyaan Hmm? loolu ñuy wax ay manifestation ay marche ngeen leen di gis mu bari nii trop yéen seen bos fukki golo ñoo fay nekk ngeen kenn ku ne yor sa caméra ña yor caméra ba ay activiste lañ de mais ñee la ñuy wax ñoom ñooy tàppet yi ñoom ñooy ñu ñeme ñi quoi leen filmer demal ñu ray la mu filmer la quoi mu ñëw teg ko fii di ci am succès mais yéen a tardé gaayam yow leen man voilà di wax ak nag ñi nga xam ne classe su Moustapha Diakhaté la xaw ma yooyu tu yow and ak président ba pare yeen yene ñew ah, di dag ay tanki président voilà yeen yes yes yées ñi ne ci opposition bi voilà ndax lan ndax seen intérêt personnel te nan réew mi ngeen fa taxawal te kenn ku ne ya ngay attaquer Macky Sall ah yene xex ba Macky Sall tok ngeen bëgg dag ay tankam ndax la ngeen bëgg defu ko fa ngeen bëgg mu leen koy jox joxu leen ko ngeen ñew ne da ngeen fi fii li opposition ko waron def ñom ñokoy def tay opposition Sénégal bu leen nexé nañ toog ah. parce que am nañ seen ay gars yi ñoom ñoo fa toog ñoom ñooy ñooy xeex ak président bi ñoom ñooy xas président bi di leen déglu day mel ne ñoom nekkuñu sax ci mouvement mouvance présidentielle bi quoi voilà jàmm mën na weesu lii. koo xam ne moo la fal moo lay jox nga ngay lekk di naan di la jox ay faveur oto yeeg di def la député def la du n'importe quoi nga ñëw di yàq daram fii mais yéen yéen ay baadoo la yéen ay jaam quoi waaw man lee tax man leen man ma ay APR nekkuma ay Benno Bokk Yaakaar na leer man je supporte l'homme Macky Sall le président Macky Sall rien de plus parce que gars yu mel ni man gëwuma leen ñoom ñee ca opposition ba laa yemale parce que nañ woré zengor woré ko Abdou Diouf woré ko Ablaye Wade dañ ko woré Macky Sall mi voilà pour Sonko wala ki pour lui demé mu wara tok Sénégal kon nak Sénégal nañ yew yeen ñi def sen ay manifeste tok leen ngeen def lo xam lu sérieux la vraiment bu ngeen génné ngeen def marche bo xamné hein ah, lu am njariñ la nit ñi mën ci wax Macky Sall né ah bi mu leen wàññi le ciép wañu leen diwlin wañu leen gas ken gennu fi nan ko président jërëjëf amul tay ñu yok courant ba kenn ku ne jog di wax ñi bëgg ci nek ay héros national ku mel Guy Sagna mi ay ñun and ak Macky Sall ñew di ci jappalé té demu ñu ñew ci ay télé di ko demu ñu président wax ak mom nek ay conseiller président bi mëna wax ak mom ci souf président buñ koy dindi sax dindi ko mais def ngeen ne Macky Sall dina tok ba un may Guy Marius Sagna moy ñew di ko imposer da nga dindi li te ñu xol lan mo tax augmentation bobu te xooluñu woon lan mo tax mu un produit avant mais ban ban dëkk lañ nekk fan lañ nekk il faut être cohérent quoi nit ki da ngay nekk di ñu dëgg bul mere nit rek tax nga ñëw di wax lu bon ci moom di ko teg lu bon ci moom di tegoo ko fenn.

kàccikat yoo xam ne xamuñu dara ci domaine yooyu ñoom ñooy ñëw di ñu rey fii du matin au soir ñu naan ne génnee leen Sénégal yi ñëpp dañu war a bàyyi seen i liggéey ak seen njaboot ak seen doom seen ay études naan dañuy ñëw di topp golo yoo xam ne amuñu xëy amuñu ngont mais may leen nit ñi jàmm moo tax flop ci ngeen di dëkk li ngeen di def du manifestation dara kenn ku ne day ñëw di wut buzz voilà. yaana maar dañoo suux kenn faaleetu leen bu ñëwee fi ay nañ bokk xawma lan sobe liñ bokk ak li yaakaar yu kenn xamul mouvement yooyu yëpp bu ngeen xoolee ñoom ñu ngi ci biir noonu leen ko mu waxee fu nit nar a nar a siiw rek nga gis ñoom ñu ñëw roofu ja bu ñëwee filmer ñu ngi fa indi dem jaay ko tubaab yi ñuy xas tubaab yi ngeen di xas ak ñeneen di xas nekk ci Europe bi nekk ci Amérique nit ki bu dee patriote nga li nga gëm tubaab bi dama ko bañ bul ñëw di liggéey ak tubaab mu lay fay mais ñi lay wax ñëpp tubaab a leen di fay ñu naan si salon fii ci Europe nekk ca amerique bu ñu jógee naan ñun ay ngand bëgguñu tubaab yi nañ leen génne Sénégal yow yaa génn Sénégal dem fekk ndeyu tubaab yi kon may leen ñu jàmm sama gars il faut être cohérent li ngeen gëm ba Lat Joor ba mu ne maalaw di gis raay bi gisu ko dafa daayif man voilà. mais demal nga rey sa bopp ah ñii duñ dara dégg naa benn membre Y'en a marre ñii duñ yàlla duñ yoneen Macky Sall dictateur la délee sa bakkan na la ko jaral nga dee te pourtant moom ma koy wax ba gars yi reyante ca àll ba la nekk def vidéo am de yéen kan ngeen yàpp hmm? kan ngeen yàpp affaire yi du wax jëf la boo ñemee bala ngay ñëw fi naan demal nga jaay sa bakkan demal yow nga jaay sa bakkan avant tout mais sauver sa bakkan di raylu bakkanu jàmbur kooku yàpp nit ki la gars yi fii la ñuy yem ngi commencé tàng Khadim Gueye TV moo nekk nii bindal ba bouton bu bu xonq bi nga abone boo ko defuloon sa xarit na ko def fii dëgg fi nekk ah, kenn du fi saaga nag ku fi saaga maa koy gis signaler sa maam ñu dindi sa account YouTube donc li may wax bu la neexul zappel nga seetaan beneen canal beneen chaîne peace and love guys xam fu mu leen teg fii ciao ba ci fan yi incha allah rabbi